muqaddamatul xidma fi salaati ala nabiy rahma aw miftaaxu saada fi salaati ala xayri saada allahumma salli ala sayyidina wa mawlaana muhammadin al ahmad wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi warzuqni bijaahihi an laa uxaalifahu ya samad bismillahi irrahmaani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa mawlana muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ridwanullahi taala al akbar anin abdulxadim wa an jamihi awliyaillahi almuqarrabin maa ngi tàmbale samay kàddu ci tur suñu borom di wax bismillah di sant yàlla mi borom mi ndefi di julli di sëlmal ci ki gën a tedd ci yàlla yónni ci bindéef yi kooku mooy sunu sang sunu kilifa maam nga xam ne mooy Muhammadul Amin mooy ku ñu sant ki tey ku ñu wóolu ki julli googu na ba ci ay ñoñam ak i saxaabaam mbooleem seen ngërmal yàlla li gën a màgg yàlla nekk ci jaamub yàlla bi tey liggéeyaa kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak mboolem liw yàlla yi ginnaaw loolu ñoo ngi nuyu waa keppaangook salaatu ala nabi nuyoob islaam te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu am mbégte ñëwaat ak yéen tey ci sunu salaatu gi nekk ci muqaddamatul xidma nekk ci muqaddamatul kubra fi salaati ala al busra allahumma salli wa maulana muhammadin al وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه أن لا أخالفه يا صمد kon salaatu googu dañ fas yéene ànd ak yéen yàlla yàlla na nga julli sëlmal yàlla nga julli ci sunu sang sunu kilifa Muhammad Muhammad bi nga xam ne mooy Ahmad al Ahmad sëlmal ci moom ak nag ma wërsëgal nag ci barkeb ci barkeb moom Seydina moom Ahmad ci barkeem nag ma wërsëgalee ma bañ a wuuteeg moom fenn yow yàlla mi nga xam ne yaay samat kon gis nga fii ci salaatu gi tey sëriñ bi indi na fi turu turu bi di Ahmad Ahmad mhm. Ahmad nag tur la ci turu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy tur wi gën a siiw ginnaaw Muhammad tur wi sax ci alxuraan benn yoon ci suratu saf sun borom nee na wa isxaala xiisa bnu maryama yaa bani inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min attawrati wa mubassiran bi rasulin yaati min baadiya ismuhu ahmadu mhm. kon tur woowu alxuraan indi na ko mhm. tur woowu sax di ahmad ñi ngi ko xaree ñi ko jëlee ci baatub alhamd mook muhammad ñoo bokk fuñ leen jëlee mhm. jël nañ ci an abi hurayra nee na euh, jël nañ Abu Hurayra mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa nee na Moussa bu ñu wàccee ci moom tawreet mu jàng ko daf caa gis ñu tudd xeetu Seydina Muhammad damaa gis mu ne yow suñu borom damaa gis ci tawreet bii nga ma jox xeet woo xam ne ñooy mujj ñëw waaye ñooy jiitu def leen sama xeet suñu borom ne ko tilka ummatu ahmad loolu xeetu ahmad la kon gis nga tur woowu ñi mu rotee ci wax jooju mhm. ahmad nag dañ koo toxalee euh, alamun manqul min sifa la min fi'l dañ koo tax toxalee ci jikko ci melo waaye du ci verbe euh, sifa boobu nag mooy tafdil lañ ci tudd rek afala la mooy tafdil moo tax boo demee ci ashifa xaadisiyaat nee na ahmad afaal mubaalaqa min sifati alhamdi kon mhm, kon mooy ki euh, euh, yonent bi mooy ki gën a màgg ci ñi sant moo gën ci ñi sant moo ëpp ñëpp sant mooy ahmadul muhammadi sant kat yëpp mooy moo leen dàq sant mooy wa ahmadul hamidin ñi ñi sant ñëpp moo ci gën a sant bu yemal xiyaamee drapeau cant ci loxoom lay nekk ngir sun borom matal matal ko ak cant mhm. moom mooy borom maqaamal mahmud jataay boobu nga xam ne bu ca toogee ñëpp koy sant bu ca toogee ñi njëkkoon ak ñi jiitu woon danañ ko sant sun borom ubbil ko ab bunt ci cant bunt boo xam ne mosuñu koo jox keneen ku moom sun borom tuddee aw xeetam alhamadun sun borom jagleel ko saar wu tàmbalee ci alhamdulilahi rabbil alamin sun borom nag euh, xaral ko xaral ko wala am na sax yeneen fa ginnaaw faatna yeneen saar yu tàmbalee alhamdulilahi rabbil alamin faasiri ak ca topp surtu kahfi mhm. sun borom def def euh, aw xeetam ñuy xeetu wow la ñuy sant waa àjjana seen mujj wax mooy sant wa xudiya bayna bil xaq wa qiila alhamdulillahi rabbil alamin seen mujjug woote foofu àjjana mooy sant wa axiru daxwaahum an alhamdulillahi rabbil alamin sun borom digle ci làmmiñu yonent bi nga xam ne mooy ahmad lépp lu ñuy def ñu tàmbalee ko ak cant lépp lu cant amul loolu lu néew barke lay doon kon gis nga tur wi di Ahmad euh, mu ngi noonu tur am solo la te la ci gën a yéeme kat mooy tur wii di Ahmad lu njëkk yonent bi di ñëw kenn tudd ko yàlla da ko aar taw rek tudd na ko de waaye kenn ko tudd Ahmad amul. bi yàlla bindee asamaan bind àddina ji ba ni Seydina Mohamed ñëwee kenn ko tudd Ahmad ku njëkk Seydina Mohamed amul wax nañu ki ko njëkk a tudd ginnaaw yonante bi mooy Ahmad di bàyyi Xaliil mi nga xam ne mooy moo defar arab bi mhm. kon euh, mi ngi noonu. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax bokk ci turam ahmad te turu ahmad bi ñëw na ci alquran ci sóoratu saf moo dàq sant ñëpp allahuma salli ala sayidina wa maulana muhammadin ahmad wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi warsuqni bi jaahihi an laa uxaalifahu yaa kon ahmad mi ngi noonu mi ngi jóge ci sant mooy ki dàq sant mooy kiñ sant fa yàlla moom sayidna muhammad mooy kiñ sant fa malaaka yi mooy ki mbokkam yonent sant mooy ki waa suuf yëpp sant doonte am na ñu ko weddi waaye jikko yi ne ci moom jikkoy mat yi képp ku am xel da nga euh, sant jooju donte nag man mm, ngaa diingat mhm. takat ci dëgg dëgg nag moom yonent bi santaakatu sun santaakoonu sun borom la moom la yàlla jagleel ay cant nga xam ne dana cant cant goo xam ne yomal xiyam kenn mësu koo sant aw xeetam ñooy sant yàlla bu neexee ak bu naqaree xeet Seydina Muhammad xeetu Ahmad seen julli ñu ngi koy tàmbalee ci alhamdu seen xutba ñu ngi koy tàmbalee ci alhamdu seen bind ñu koy tàmbalee ca alhamdu bu yowmal xiyaamee drapeau sant ci loxoy Ahmad lay nekk te mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi bu yowmal xiyaamee ba. ñu wàcc jant bi mu jege lool nit ñi nekk ci tiis ak njàqare bu ñuy wut ku leen xettali ah kuñ dem ci yonent yi nga joxe ngant buñ agsee ci moom moom bu jigee day dem suñu boroom tàmbalee sant suñu borom te moom mooy boroom al maqaamul mahmud jotaay bu ñu sant boobu nga xam ne bu co toogee ñëpp danañ ko ñee ña jëkkoon ak ñu joon loola moo tax sunu borom naan ko minal layli fatahajjat bihi naafilatan laka xasa an yab'asaka rabbuka maqaaman mahmuuda bu taxawee ca maqaaman mahmuud googu bu kere goyee ña nekk ci jataay boobu ñëpp danañ ko sant jullit ñaak yéefar ña ak ñu mujjoon moom mooy ki ñu sant ngir limu feesal suuf ci ak njub ak gëm yàlla ak xam-xam bu am njëriñ ak jëf ju baax ak lim ubbi ci xol yi ak lim wuñu lëndëm lëndëmi Euh, lëndëm lëndëm ci waa kaw suuf ak lam leen musal ci saytaane ak bokkaale yàlla ak wedd yàlla ak réer mhm. kooku mooy euh, sayidina muhammad sallallahu alayhi wa moom mi nga xam ne mooy ahmad te sëñ bi di julli ci moom ci salaatu gi mhm. kon mi ngi noonu di tur wi di ahmad tur nag daa bokk ci tur yi nga xamee ne xam nga tur yonent bi ñaari xaaj la dafa am euh, tur woo xam ne kenn du ca fekk yonent bi lu mel ne muhammad ahmad mu xaasir muxaffa ak nabiyul marhama am boo xam ne nag yonent yi mën nga caa fekk waaye nag moom da caa gën a matle da ca ëppale mhm. kon turu ahmad wi mi ngi noonu kon tur wi mi ngi noonu te mooy ahmad bi ahmad nag ismu tafxiil la afala tafdil la min mahmud dañ naan hada mahmud wa zaaka ahmad kii kat mooy ki gën a cant lu bari bari ahmad ci turu yonent yi la la bokk ah, muhammad mahmud ahmad hamid yooyu yëpp ci turu yonent bi sallallahu bokk am nañu waxante tamit ahmad mooy ki dàq sant ki dàq sant mooy ahmad kon euh, gis nga tur wi di ahmad ni mu amee solo te lépp jëm ci ak cant tur wu am solo la tur wi wax naa sànq ne mooy ñaareelu tur ci tur yonent bi yi gën a siiw ginnaaw Muhammad Ahmad siiw na te tur wi sun borom nda ko ko jagleel benn malaaka mu jege yàlla fekk ko ca benn yonent bi yàlla yónni fekk ko ca dama jëlale nag kon euh, li des ci nit ñi ahmad mooy turam wi nga xam ne téere yi ko jiitu woon indi nañ ko yorante yi ko jiitu woon daa nañ ko bégalee seen nit seeni ñooñ yàlla ci xikmaam ci xariñam moo aar tur wi ba kenn tudd ko yorante bi mooy ki ko njëkk a tudd waaw ngir benn sikk sàkk bañ ca am kon turu yonent bi du ay noo rek noonu mu dem waaye dañ ko jëlee ci ay jikko yu mat ci ay melo yu mat yooyu yëpp de doon ay adjectif qualificatif yoo xam ne dafa jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu xaree ko ci ay jikko ak melo yoo xam ne nii melo yuñ tàggal melo yu mat la tam nekk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama kon baatub ahmad ñi ngi ko xare ñi ngi ko jëlee ci alhamdu bi nga xam ne mooy firi cant mhm. al nag cant googu faaw nit ki am lu mu jëf euh, ngëneel lu nekk ci moom loo xam ne moom moo ko fàggu li wutale alhamdu ak mattu mooy loolu nit ki mën nga koo tagg te euh, du lu mu mën nga koo tàgg ci taar bu nekk ci moom xam nga loolu du jëfam loolu du fàggoom mën nga koo tàgg ci ak tabeem loolu du ci jëfam waaye nag cant moom boo koy def nit ki lu ñafeel boo xam ne lu mu fàggul boppam la kon soo xamee loolu danga xam ne Ahmad mooy ki gën a mën a sant boroomam mhm. nga xam ne cant boroomam da caa def loo xam ne kenn du ko def da caa def loo xam ne kenn du ko ci euh, dap moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama Seydina Muhammad moo dàq sant ñëpp boroomam donte yonent yëpp ya ko jiitoon ñëpp sant nañ seen borom waaye moom fa mu àgg ci suñu borom ci cant ga gën cant ga gën a bari lam ci def kenn def ko ca mm-hmm. ñu wax ne nag liy dox diggante Muhammad ak Ahmad leen tàqale mooy euh, Muhammad mooy ki ñuy sant di ko santaat cant ga répété wu waaye bu dee Ahmad nag mooy kii sant ci anam ga gën a matee kii sant ci anam ga gën a rafetee kii sant ci anam ga euh, gën a baaxee Muhammad mooy ki ñuy sant di ko santaat nga xam ne daa bari lu koy sant li waral cant ci moom daa li ñu war a sant li waral lu ñuy sant daa bari di répété wu moo tax ñu koy sant waxtu wu bu dee Ahmad nag af xaala taf di la ah, ci sant nga xam ne moom mooy cant cant ga gën a yay cant ga gën a rafet moo koy sant boroom fa Muhammad siyaaratu xamdil fil kamiya wa Ahmad siyaaratun fil kayfiya kon Muhammad mooy ki ñuy sant mooy mooy cant cant ga gën a bari waaye mooy cant cant ga gën euh, ci cantuk mbindéef yi Muhammad mooy ki ñuy sant cant gu répété waaye nag Ahmad mooy kiy sant boroomam cant ga gën mooy sant boroomam cant ga gën cant ñëpp kon Muhammad mooy Mahmoud waaye nag Ahmad mooy Ahmad alhamidina li rabbihi mooy ki gën a sant boromam waaye nag turu ahmad moo jiitu turu muhammad de waaw waaw mhm. ndax yonent bi ba ko sun borom bindee rek bind leeram leeram daa sujootal boromam euh, juróom ñaari téeméeri at kon cant ahmad gi moo jiitu moo tax xaqiqatul ahmadiya moo jiitu xaqiqatul muhammadiya mhm. kon euh, ahmad gi moo jiitu mhm. gisoo ko sax yonent yàlla Moussa bu mu ñaan bu muy ñaan dala dana allahuma ij'alni min ummati Muhammad min ummati Ahmad hmm. kon euh, mi ngi noonu ku xool nag jaar-jaar yonent bi sallallahu alayhi wa ak jikkoom danga gis ne léppam cant boromam la woon guddi mag mbëccëm ak léppam yëngatoog dalam yépp sant boromam la woon hmm. kon euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi noonu mooy ahmad mooy ki daq cant mooy ki cant cant euh, nga gën mhm. kooku mooy seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallama kon tur wi daal di ahmad mi ngi noonu mhm. mooy ñaareelu tur yu gën a rëy euh, ginnaaw euh, turu ma Muhammad moom moo ci topp Ahmad mooy ki daq sant boromam mhm. Ahmad gi moo jiitu Muhammad gi kon euh, Ahmad gi mi ngi noonu mooy ki daq sant boromam mooy ki ki sant cant ga gën mhm. waaye mooy ki ñuy cant cantit gi gën mooy ki ñuy santate di ko santaat nga xam ne cant gi day rapporté wu ci moom kon yàlla yàlla nga julli sëlmal yàlla nga julli ci sunu sang sunu kilifa Muhammad bi nga xam ne moo dàq sant boromam mooy cant cant ba gën mooy dëgg dëgg cantaakoon ba di cant cant ga ëpp cant ga gën cant ga gën mat te moom it dañ koy sant di ko santaat na mooy Muhammad mooy Ahmad kon yàlla nga julli sëlmal ci moom te yàlla nag ma wërsëgal yow yàlla moom Seydina Muhammad ma bañ a wuuteeg moom ma bañ a wuuteeg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa moo wuuteeg moom ci dara warsuquni bi jaahi an laa uxaalifahu yaa samat kon euh, mi ngi noonu allahuma salli ala sayyidina wa mawlana muhammadin al ahmad wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa suqni bi jaahi an la uxaalifahu yaa samad gis nga euh, salaatu gu neex la allahuma la jeexee woo yàlla waaye yaa samad la jeexee kon gis nga salaatu gi tur yàlla la tàmbalee tur yàlla la la jeexee te tur bi mu jeexee nag di as samad ismun min asmaillahi alxusna asamat ci benn firin bi wala ci benn version nee nañ mooy ki ñuy jublu ci aajo yi mooy ki nga xam bu nit amee aajo moom ngay jublu ngir kaweem ngir kàttanam baat la moom asamat bu boole maax naa teddaanga yëpp ak teraanga nga xam moom la ñuy jublu ci aajo yi mhm. aajo yu faju ci moom la fajo am na ñoo wax ne as-samat mooy ki nga xam ne du lekk naan amul biir mm-hmm. nga koy lekk am biir kon doo yàlla mm-hmm. ñu ne as-samat mooy ki fi des te du jeex mukk am na ne as-samat mooy ki nga xam ne jurul kenn te kenn juru ko am na ñoo xam ne as-samat mooy sang bi nga xam ne ci lañuy jublu ci euh, ajo yi moo féete kaw ñëpp te kenn du ko féete kaw te it ismu tur wi di as-samat ñëw na ci alxuraan benn yoon ci suratul ixlaas bismillahi rahmaani rahiim qul huwa allahu ahad allahu samad mhm. yàlla mooy aji am puissant bi mooy aji tedd ji nga xam ne moom la ci la nit ñëpp di jublu ci seen ajo moom rek mu am kàttan ak man-manu faj ajo yi mooy kenn ki nga xam ne jurul kenn te kenn juru ko te nag euh, mi ngi mi ngi noonu dara lu mel ne yàlla amul kon gis ngeen asamat bi sëñ bi indi euh, fii bi mu ne allahuma woo sun borom julli ci yonent fi ba noppi nag lam ñaan nag mooy war suquni bi jaxe allah uxaalifoo yow yàlla mii samat nga xam ne ci yow lañuy ñuy jublu ku am aajo ci yow lay jublu yow yàlla yow yaay faj aajo yi yow yàlla doo lekk doo naan yow yàlla moomee yow lay ñaan asamat nga mm, wërsëgale ma man sëñ Tuubaa kon gis nga baatu wërsëg baatu risq du alal nii rek de na ma wërsëgale ma bañ a yonte bi sallallahu alayhi ndax ay yëpp lépp luy ay mi ngi ci wuuteeg sayyidina Muhammad fal yu alladina yuxaalifuuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum asaabun alim loolu la alxuraan ku wuuteeg yonte bi rek mbugal dal la ku wuuteeg yonte bi rek yaa ngi ci fitna ndeke baax ndeke topp sunu yonte bi loolu wërsëg la ñun nag wërsëg ñu ngi ko jàppee xaalis nii rek matériel nii waaye ndeke jub ndeke baax ndeke bañ a wuuteeg yonent bi loolu wërsëg la wusun boroom di wërsëgale allahu akbar sëñ tubaa li mu ñaan fii lu am solo la te mooy bañ a wuuteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu muy def mu di ko def na ko yonent bi daan defee topp ndigal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam virgule du ko ci bàyyi lu yonent bi tere du ko jege fenn mhm. nang ma wërsëgale ma bañ a wuute ak moom moom yonent bi ci barkeem allahu akbar mhm. sëriñ tubaa dafa roy yonent bi sallallahu alayhi xarfan mhm. mhm. gis nga yaa samar ji ci amee solo te gis nga kat euh, ci ci wàllu numérologie euh, salaatu gi Hmm, allahuma la tàmbalee jeexee samadu soo jëlee allahuma valeur numéro gam mooy cent six nga jël samadu valeur numéro gam mooy hmm, cent quatre gis nga cent six plus cent quatre moo la jox ça te fait cent dix nga deux cent dix yi boo ko multiplié par quatorze quatorze mooy wahab la donateur quatorze mooy jawaat ku tabe ku mën a ku mën a maye ki ku baax ki gis nga boo defee euh, deux cent dix bi nga xam ne mooy allahuma samadu fois quatorze fois moo lay jox deux mille neuf cent quarante gis nga deux mille boo ci yokkee amiin te amiin mooy yàlla nga nangu ñaan te sëñ bi fii dafay ñaan woo yàlla jula ci yent bi ñaan moo la jox trois mille quarante deux trois mille quarante deux mooy valeur numéro gu allahuma salli ala sayidina wa maulana muhammadin ahmad وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه أن لا أخالفه يا صمد yàlla nañu yàlla wërsëgale ñu itam yàlla bu ñu wuuteeg sëriñ Tuubaa bi nga xam ne moom wutuwut ak yonante bi waaw bu ñu wutuwut ak sëriñ Tuubaa rek wutuwuñu ak yonante bi ndax moom wutuwut ak yonante bi A plus B égale AB mathématiquement parlant bu ñu wutuwut ak yonante bi rek bu ñu moom wutuwut ak yonante bi. ñu itam bu ñu wutut moom rek wutiwuñu ak yonent bi kon gis nga salaatu gi sëñ bi ni mu xereñee allahuma ak baat bi njëkk ak baat bi mujj nga yokk ci amin mu jox la valeur numéro gu salaatu gi waaye salaatu gi sax mën nga koo def beneen istixraaj gis nga deux trois mille quarante deux nga xam ne mooy valeur numéro gu salaatu gi mu la neexee nga jël tur yàlla wi di ahad ahad nga xam ne miim gi rek ahmad miim gi rek moo ci ñëwul ndax ahmad boo génnee mim gi mu jox la ahad di tur yàlla ahad googu valeur numérique am mooy treize boo ko multiplié par deux cent trente quatre moo la jox trois mille quarante deux wala tur yàlla wi di xayyu yàlla miy dund te du dee te kuy dund moo la jox dund ku dundatul moo moo jëla ci ak dund yàlla moom xayyu moomu boo ko boo ko adadee valeur numérique am dix neuf la boo ko multiplié par cent soixante neuf moo la jox trois quarante deux tolloog valeur numérique allahuma salli ala sayyidina mawlana muhammadin ahmad wa sallim ali wa ala alihi wa sahbi wa suqni bi jaahi an la uxaalifoo yaa samad ba tey bu la neexee nga def ko beneen istixraaj xakiimu mhm. tur yàlla bi di xakiim ki xereñ te tur la tamit ci tur yonent bi boo ko multiplié par 39 78 fois 39 moo la jox 3042 waaye bu la neexee al ahmad al ahmad la su indi alif ak gi trente et jox quatre vingt gis nga quatre-vingt-quatre gi nga xam ne mooy ahmad boo ko multiplier par trente-six euh, plus dix-huit jox trois mille quarante kon gis nga salaatu gu am doole mu ngi nii mm, baatu ursuquni gi rek 368 la am na lu mu jàpp sallallahu ala muhammad moo tolloog ursuquni kon salaatu gi daal mu ngi nii salaatu gu neex la rawatina nag mu tàmbalee ko ci allahuma jeexalee ko ci asamat nga xam ne koy sikar salaatu bi yaa ngi julli ci yonte bi waaye yaa ngi tudd sun borom ndax salaatu gu am na tudd am na dikrullaa ndax allahuma waaye bii rawat nag mu indi ci baatub samadu bii mm-hmm. as samadu ku koy sikar yaa samadu ku koy sikar doo ñàkk de te doo xiif mm-hmm. ku koy sikar lu bari doo kon salaatu gi daal mi ngi nii allahuma salli ala ahmad wa sallim alayhi wa ala alihi bi jahi an laa uxaalifahu samad li ma ci gën a neex nag ci salaatu gi mooy war soqani bi jaay an laa uxaale foofu yaa samata sëñ Tuubaa ñaan gim ñaan ne boo wuuteeg yonante bi sallallahu alayhi wa sallam lu yonante bi digle naa ko def lu mu tere naa ko sori lépp lu yonante bi daan def naa ko defee ni ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe kii moo sopp yonante bi kii moo bëgg yonante bi bay ñaan baña a wuuteeg moom mbokk yi kenn ku ne ci ñun ñi jàng xidma kenn ku ne ci ñun ci taalib sëñ Tuubaa war ngaa xanti woo war ngaa fexe ba doo wuteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom des ab sangam yi liggéey liggéeyal kay ab sëriñam ma ngay ñaan bu mu moom kon ñun ñëpp nañ ñaan ñu itam bañ a wuteeg moom allahu akbar yàlla bu ñu wuteeg sëñ Tuubaa yàlla bu ñu wuteeg yonent bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.